assalamualaikum mbokk yi ba léegi ñu ngi fi ñu ngi lu Escale ni comme ni ñu ko defee tey le matin ñëw fekk ci fii benn journée 48 heures mën nañ ko sa deux jours yoo xam ne commune bi Lour Escale mu ngi koy def conseil municipal bi moo koy def indi ci des médecins mais ànd ceeg délégué régional Yaya Sow fi ñu nekkal nag di pap Top dañ koy war laaj rek mu defal ñu benn jàngat ci 48 heures yi xam ne amoon consultation gratuite nan la fi demee ak ñaata nit lañ fi consulté monsieur Top bu ñu nuyoo pare ñu bàyyi la nga ñëw ci question yooyu. waaw asalaamaaleykum waa xibaaru Bambey ñu leen di nuyu di rafetlu seen présence fii nii ci 48 heures yi nga xam ne dañ ko jagleel santé. Euh, man maa ngi tudd Pape Diop nekk premier adjoint maire bu mhm. Escale. Mhm. waaw 48 heures yi de li ko tax a jóg mooy tey boo xoolee ci wàllu santé. Mhm. mairie bu Lour dafa gis ne population am sonn nañ lool. ci évacuation. Nous avons ne tey war ambulance parce que amoon nañ ambulance bu ñu réfectionné woon mais dafa yàqu mhm. ñu gis ne war nañ jënd ambulance ñu débloqué 14 millions ci suñu budget mhm. jënd ambulance léegi nag waroon na def réception bi nous avons mhm. ensuite ñu installé les benn sage-femme bu bees léegi nag bi en collaboration avec le délégué régional mu ne tamit puisque domaine santé la dafay déplacer ay médecins euh, defaale une consultation gratuite donc loolu ñu rafetlu ko ñu ko rafetloo aussi ñu associé ko ci journée boobu moo waral tey ni ki démb samedi ñu def euh, consultation gratuite continuer ko tey tamit le soir à 15 heures ñu def cérémonie

nous avons dañu sens de la population et le maire aussi vraiment à côté de nous. la ci mhm. à chaque fois ne prêter attention conseil mhm. en termes de réalisation nous avons un problème wax surtout santé mhm. euh, li nga xam ne moom la santé du mës a tardé nous tey boo xoolee ci wàllu réalisation on tay un bloc pour les sages-femmes la. Mhm. buñu aménager aménagé ko tabax fa tamit hall pour patient yi la. Mhm. ensuite dotation médicaments, à chaque fois dañ koy doubler. Mhm. également la euh, réalisation aussi nous avons toilette en collaboration avec la World Vision. en termes de formation aussi. L'équipe équipe technique bi à chaque fois dañ les di former sur les politiques sanitaires mu un accompagnement bu solide boo xam tay si le santé tay en résumé mën nañu wax loolu boo jëlee tamit éducation également tay mën nañu wax commune de Lour l'abri abri provisoire donc loolu yëpp am 4 salles de classe réalisées réalisé en temps record mhm. clôturé tamit l' l'école mère l'école de Lour Escale boobu moom moom parce que dañ gis école la centre d'examen c'est également centre d'examen BFM, nous nous ñu gis ne kon war nañ ko mën a teg ci condition yu bu mhm. ci bourse familiale je pense que on peut dire qu'à 90% de la population avons une couverture bourse familiale également en collaboration avec PIDAM, nous avons gerte jox les chefs de village nous bay ko mhm. en communauté recettes avons ñu ci am yëpp ñu xool ñi gën a néew ci village yi mhm. ñu dugal mutuelle bi nga xam ne dinañ faju te duñu fay dara loolu déjà vraiment lu am solo la. lu am solo ok kon ci côté boobu côté visage gis nañu ne tout est ok mais tamit euh, ambulance bi dañ ciy ñëwaat rek mais dañuy gis ne tamit yoon bi métti na comme ambulance dafa am fu mu war a mën a jaar pour jaar yoon. malade bi mën a dem ñu koy ñu ko ci moins de quelques minutes mais tey yoon bi métti na métti goo xam ne ban message nga am pour l' état bi ban message nga am pour les autorités yi nga xam ñoo fi jaar ñoo xam ne le mais ba léegi gisaguñu lu concret ban message nga am pour loolu voilà comme li ma wax si sama discours bi sànq rek parce que wax naa ko carrément ndax ay nit bu ñuy ànd vraiment il faut tenir un discours franc. Mhm. parce que tay Macky Sall wax depuis 2009 nous ngi koy mhm. pour la politique vraiment dab euh, mu am réew en 2012 nous jot ci à chaque fois parce que gis nañ ne euh, li comme plan Sénégal émergent gis nañ ne war nañ ko a ci mhm. Euh, dafa am ay doléances yoo xam ne à chaque fois. dafay refaire la surface. certes nag mu ngi def. parce que mhm. tey ci wàllu ndox ci wàllu bourse familiale couverture maladie universelle infrastructure mu ngi ciy def mais nag dafa am ñaari facteur clé yoo xam ne tey ñun mën nañ wax ne de avant 2012 ñu ngi koy jooy. Mhm. te tey rek wax naa ko mooy lan mooy la route Koungheul Ribo nekk na axe boo xam ne c'est très dangereux parce que tey mën nga def une heure de temps deux heures de temps ci yoon bi non seulement yoon bi baaxul mais dafa nekk ay kàmb yoo xam ne ay risques yu nekk ci mhm. te Macky Sall avant muy jot ci réew mi wax nañ ko bi mu ñëwee tamit di def législative wax nañ ko ko récemment bi nga xam ne Boun Abdallah Dionne moom la jiital ci élection législative yi passé aussi waxaat na ko mhm. bërki Dembo Ndiaye le président en personne déplacé wu dem seeti son ami son frère Yaya Sow jaaraat ci yoon bi loolu aussi nekk na loo xam ne tey ñun doléance la boo xam ne duñ dañuy continuer di ko wax ndax tey mhm. euh, développement man jàpp naa ne foofu la war a commencer parce que tey boo defaree yoon defar nga transport mhm. koom-koom yokku revenu yu bëri yaa ngi koy créer léegi nag soo defalee tamit courant électrification permanente bëri na ñoo xam ne tey am nañ seen métier mais mënuñu liggéey. Mhm. donc ñun ñaari facteurs yooyu même si nous sommes avec la mouvance présidentielle dafa nekk loo xam ne tey suñu problème la. c'est l'épine dorsale de la commune de Lour Escale de l'arrondissement de Lour Escale je dire muy am solo fekk nag mu ngi fi nekk comme problème duñ ko mës a ñàkk wax quel que soit notre soutien indéfectible au président de la république mais dinañ ko wax loolu jooy nañ ko ko kilifa gum fi yebali dinañ ko ko jooytu voilà ok mais dañ ci jeexal te ñëw xam nañ ne euh, yaa ngi ci éducation bi sa ñaa yaa ngi nekk fële nekk docteur fële ci Gént Pathé mais loolu dañuy ñëw si beneen casquette boo sol bëgg say rek bëgg say doom bëgg say mbokk ko mën nañu koy wax le 10 nga bëgg def benn ay fourniture yooyu joxe loolu mën ngi si ñëwaat en paptal en tant que directeur d'école ou pap Top en tant que adjoint premier adjoint maire voilà xam nga tay ñun en tant que jeune mhm. yëngatu nañ ci échelonné nañ ci bépp sorte mouvement bo xamné ne c'est pour la jeunesse mhm. def nañ ko ñu lancer wu dans la politique pour un développement de notre localité pour mhm. rendre service à notre localité tay ji ci liñu yalla sédd muy as ñu ne dañ bëgg tamit jaglél suñu xalé yoy dimbalé leen motax ñu jàpp le mercredi 10 octobre bëgg a def une cérémonie symbolique de remise de cadeaux aux meilleurs élèves ah, de la commune de Rufisque. ok ci CEM bi la ou bien ci école. école primaire yi lañ parce que tey jël nañ école bu nekk. Mhm. ñu tànn fa xale ba gën a xarañ. Mhm. bu ñëwee ci bés bi ñun jox ko neexal jëndal ko saak jëndal ko fourniture scolaire jox ko mu dem jàngi. ok loolu pap moo koy def wala da am ñu nekk ci gannaaw. voilà loolu pap moo koy def. bi mu koy def nag waxtaan na seeg ñu bari. Mhm. ñu rafetlu ko ñenn ñi soutenir nañ ko en terme de conseil ñeneen ñi tamit appuyer nañ ko moralement ñeneen ñi tamit appuyer nañ ko financièrement. te mhm. kooku mën naa wax ne suñu xarit la. suñu mhm. frère la muy Alioune Badara. nee na dina si jàpp. donc maa ngi ko si tàllal loxo bu baax a baax. pour que mu jàpp si. mais suñu initiative bopp la. bi mooy première année bi mais pare nga pour pérenniser ko mu digg am. effectivement. effectivement parce que daan naa ko def sax mais dama ko dan def ci école primaire bu Lour Escale kese ok ok parce que foofu laa jàngee ah ah ñëwaat encore servir fa pendant 10 ans bo xamné rendre na service sama école sama localité mhm. cofeel googu la am ci ñom ba à chaque fois lu yëkëti rek ma taxaw ci rawatina tay désherbage bi ñuy def tey mhm. parce que tay war nañ désherber école bi mhm man maa yëkkati suma vingt cinq francs fay pour que ñu désherber ko mhm. ngir ñu le lëkkaat bi ñu mën a installé wu commencé liggéey muy lu am solo waaw mhm. te à chaque fois à chaque fois bu ñu amee yenn rencontre yeeg tout ça dañ ma ciy sollicité ndax bi ñu defee seen fin d'année woowoon nañ ma ne ma sa participation ak sa teewaay ma yëkkati tamit jox leen. comme Pape sori na. Mhm. mais Pape ñu ngi Kuluur ba léegi. effectivement effectivement parce que le problème bu école bi am. mën mhm. école parce que tey ci commission éducation. Mhm. man maay le secrétaire. te yaakaar naa lu bari initié nañ ko ci éducation ndax mhm. def nañ fi à deux reprises journée de l'excellence boo xam ne en collaboration avec collectivité locale bi def nañ ko loolu laa gis ne war nañ ko continuer bi conseil municipal bi deful ma ne man ma pourquoi pas def ko def ko muy la am solo je crois que muy nekk le 10 mercredi le 10 loolu Sénégal yëpp war nañ ci jàpp ci jàpp ko so

bari na xalé yo xamné tay ñu ngi université ci samay loxo lañ jaar ah donc mu nekk une fierté mhm. ma gis né tamit école bi man fi la jàngee mhm. def fi sama cursus lepp mhm. ñëwaat encore servir fi ma gis né man vie dama wara rendre service toujours sama localité donc euh, li ci li ma yàlla sédd ci li ma am ak relation yi ma am yépp sama mbébét yépp mooy taxaw suma gox rawatina Escale loolu daal lay tëjee di gërëm vraiment xibaaru bam ndax de may ngeen ma occasion moom mën a wax tey lu bare bari loo xam ne euh, xëy na ñu ngi koy def séntuwuñ ci dara nag non moom mooy loolu voilà ndax tey boo xoolee école bi même bi ma fiy nekk dans an ans mhm. man maa daan jël suma fas ak machine si man kay dana romb nga sa kay fekkee sax ne waa waa ji doo comprendre dañ daan boobu nekkoon docteur mais dana nekkoon ku ñu affecté effectivement bu la neexoon nga ne instructeur nga da ngaa ñëw pour jàngale seulement effectivement jàngalekat yi mosuma leen def nawle dama leen daan considéré comme ay doxandeem yu jege fële ñëw te ñoom yaakaar naa mën nañ ma seede mhm. ndax dix ans yëpp képp ku ma fi jëflanteeg tey ñu ngi continuer di am relation mu mel ni c'est une famille continuelle ndax loolu xëy na bu rafetul woon loolu du ci am ñi ci jaar ñëpp tey mën naa wax Sénégal partout adduna bi sax laay wax fu ma dem tey

commune ñoo na fi commune ñoo na leneen ñoo na fi mais ci département Koungheul bokkuñu ci commune yi ñu ko njëkk a def idée boobu nag bu amee la maire Ablaye Ka dañ ko ci gërëm mais ki ñu taxawal tim am na ci xalaat parce que maire bi dafa am na ubbeeku na di déglu ay ay ay adjoint adjoint tim yaroon nañ dañ koy jox ay conseils yoo xam ne day jëmale mbir mi kanam kon li l'équipe l'équipe bi moo nekk moo gagné lour moo gagné moo tax ñu jàkkaarloo nag Pape Top di la gërëm di la sant encore une fois di joxe rendez-vous le 10 li ma fàtte rek mooy toujours ci éducation mhm. parce que tey dañuy def ba def loo xam ne sax mënuñu ko. ah ndax tey mën nañu wax ne conseil bi moom mooy le premier conseil bu héberger ses étudiants. ah jox leen subvention. Ah teg si tamit wutal leen logement. à ah, Dakar te loolu c'est une idée boo xam ne dañ ko partager étudier ko ak faisabilité bi yëpp te loolu day continuer à chaque fois dinañ poser ay innovation yoo xam ne tey avec fierté dañ koy defal suñu localité. muy lu am solo loolu moom itam bokk na ci li nga xam ne tey tax na ñu ngi jume ji suñu bopp ci côté intellectuel bi suñu xale yaa ngi jàng bu baax ñu am ay ay cadres un peu partout loolu yëpp ndimbalu conseil municipal bi la. kon monsieur monsieur monsieur Top comme ni ñu koy defee saa su ne rek dugg ci gox yi. fekk fa ña fa nekk waxtaan ak ñoom li jëmale gox yi kanam tey nag ñu ngeen luur ci biir 48 heures yi mais dañoo jëloon pap Top ak li mu war a def le 10 ñu war ko ci encouragé war ko wax Sénégal yëpp ñëg ko mais ñëwut mu defal ñu benn bilan bu ndaw ci li xam ne ñoom def nañ ko fii ci ne ñu ngi ko fiy def ñu di ko gis ambulance bi tey moo nekk li xam ne moo ñu a tax nañ ñëw fii ak sage-femme bi xam ne tey ñëw nañ pour installer ko ci poste bi xam ne mooy poste bu Lour Escale gis ngeen ko mais Pape question bi bu mu laaj mooy courant bi gis nañ ne poteaux yi nañ depuis des mois dëkk baa ngi lëndëm ndax a ngi wax ak waaw courant bi aussi xam nga nekk na compétence boo xam ne xëy na dépassé na collectivité mm, locale. ndax ndax ndax yéen ngi wax ak gars yi comme ça. pour ñu jàppale waaw à chaque fois ñu ngi waxanteeg ñoom. mais mm-hmm. am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar amuñu ci yaakaar. ndax tey biñ ko installé jusqu'à présent. xamaguñ ci dara. waaw ak installé nañ ko ba ci dëkk bi continué na ba Ribot mais amaguñ ci benn écho. amagul benn kii bu ñëw ci mairie bi. amagul benn link bu am diggante partenariat boobu ak commune bi. nekk na nag suñu besoin. Ah, vraiment te à chaque fois ñu ngi laajte. Mhm. ndax le maire en question aussi yebal nañ ko dem na au niveau Dakar renseigné wu te aussi ñun jëloon nañ sax initiative réparer ñaari moteurs yi nekk ci. Euh, groupe bi groupe bi. Ah ñi nekk ci ci uh-huh. pour que ñu mën a commencer alimenter. Uh-huh. mais ñu comme loo ñu ne dinañ déclencher le processus d'électrification lool motax ñu arrêté loolu di xaar mais jusqu'à présent ñu ngi xaar. Uh-huh. espérons que fi ak élection 2019 janvier février xeyna ñu. réaliser ko ñu réaliser ko kon jërëjëf monsieur Top jërëjëf mbokk yi li la woon ci Lu Escale gis ngeen fuñ ko defee tout est simple ak xibaar Bambouck nit ki fi ñu la fekk rek lañ koy mën a jëlee ñu ngi ci biir biir lu lañ nekk wax naa nag Pape Top mu nekk ndoom boo xam ne tam dañuy sawar di ko jël ci domaine bi mu nekk mais dañ koy sawar di ko jël ci ndombu tànk bi ñu ko jox parce que travail bu yàgg la buy ñëw la te buy continuer la kon mbokk yi lii rek la ñëwoon pour jëlee leen ko mais rendez-vous c'est le 10 à Lour Escale ci école primaire bu Lour Escale avec les meilleurs élèves yi xam ne moom mii mooy jël pour def ko def ko pour ngisal mën na ko nëbbu parce que poosam rek mën na ko ci def parce que yaa gën a def jënd ko génn ci poosam mais dañu bëgg mu nekk référence ci monde bi nekk référence ci tous les cultures locales nekk référence ci tous les gens yoo xamante ni seen dëkk am nañu leen jox ñu am nañu jël seen poos bu def ko kon jërëjëf may toog rendez-vous mercredi 10 fii ci Lour